askan bi wax dëgg yàlla soxna yi bari na xam nañ ne commune bi wax dëgg yàlla am na lu bari lu des euh, am na nag yuñ ma junjoo lu mel ni ay yenn projet yu mel ni marché bi parce que marché bi wax dëgg yàlla euh, metti na ci ñëpp ñun di fi dëkk di fi xëy di fi yeewoo xam nañ ne marché bi il faut ñu régler ko donc bokk na daal en tout cas ci si yiñ ma jox di ma naa leen régler marché Castor bi naa ko jéem a xoolaat te bu boobaa bu soobee yàlla dinaa ko régler parce que dinaa waxtaan nag riverains yi waxtaan ak commerçant yi. waxtaan ak maanaam daal personne concernées yëpp ñu jéem a trouver une solution pour marché bi. mais avant tout aussi dinaa jéem a enseignants yi dinaa leen utal ku ci nekk ordinateur parce que yaakaar naa ne enseignants yi dañu war a préparer seen i seen i seen i seen devoir yi pour xale yi te suñu amul ordinateur ci ci bari xam naa ne vraiment am nañu problème ordinateur. dinaa rénover école yi salle de classe yi dinaa ko defar danaa cultiver l' excellence ci xale yi parce que xale yi tey jii wax dëgg yàlla dañ leen war a booster dina aussi ut ou euh, l'aller à l'école dina ko djema djema xalé yi bon les les élèves les plus méritants également danaa len jàppale danaa len jàppale vraiment danaa danaa dal euh, aussi di len visiter dina def ay visites dinaa organiser ay visites auprès des élèves dina out ay médecins yo xamné deux fois par an dina ñew di len euh, di len visiter di xol sen problème yi ñu am pour vraiment ñu mën continuer sen jang dans de bonnes conditions xana ma len di ñaan rek ma len nañ ma nañ ñu voteel nañu voteel buntu bi parce que buntu bi moy incarner le changement buntu bi nga xamné ki kii bu bleu la spécimen bi dafa bleu ah koku bobu buñ ko défé nga xamné ne bu soobee yalla ñun ñu nañ ñu voteel daal.